sëriñ ibrahima mbàkke ndar sëriñ ibrahima mbàkke ndar mi ngi gane àdduna bi sub gaaw ñeenti fan ci weeru safar ci atum 1323 ci gàddaay gi gaawu juróom-ñeenti fan ci weeru safar ci atum 1323 ci gàddaay gi dëppook muy samedi 15 avril 1905 samedi 15 avril 1905 ci dëkk boobu di ndar géej sëriñ ibrahima mbàkke ndar doomu soxna mariama njaay la ak maam cheikh anta mbàkke mi rakk ku baax ki sëriñ seexul xaddim bi mu feeñ feeñee jamono ci atum 1905 booba sëriñ Touba Seexul Xaddim mi ngi ci résidence surveillée ci réew mi di gànnaar bi mu feeñee jamono ci atum 1905 tombeek Cheikh Ibrahima Mbàkke Ndar war a am lii di aw tur bis booba dafa tombeek sëriñ Touba Seexul Xaddim woolu woon kii di Maam Moor Jaara magi mag ak kii di Maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ngir ñu fekk ko ci réew moomu di gànnaar biñ ba tolloog ndar la tombeek bis boobu itam ñuy wutal kii di Cheikh Ibrahima Mbàkke lii di aw tur ñu maam Ceerno Ibrahima Faati sàkkoo woon ci maam Cheikh Anta mu fob jëmm jooju tudde ko ko ndax ginnaaw bu Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim waxee lu yéeme yéeme ci soxna soosu di soxna Mariama Njaay ak cër bi Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim leeloon kii di soxna Mariama Njaay loole moo taxoon maam Ceerno Ibrahima Faati bëggoon maam Cheikh Anta tudde ko doomu soxna Mariama Njaay bi maam Cheikh Anta Mbàkke di ko xamal ne comme ci kat commune la feeñe jamono déclaré nañ ko ba ci mboolim Ibrahima Faati moo sàkkoon ci maam Cheikh Anta ñu koy wooyee jooju kon loolu moo waral ñu koy wooyee sëriñ Ibrahima Ndar ngir barke lu ci turu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru waaye cim noppam sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim lañ ci tufli bépp këyit woo xam ne itam sëriñ Ibrahima Mbàkke Ndar am na ko turu Ahmadu Mbàkke moo ci nekk ndax kiñ ko tudde di sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ñu gën koo xam ci sëriñ Ibrahima Mbàkke Ndar am na nag ñum bokkal soxna Mariama Njaay mii di waajuram wu jigéen waaye bokkuñu nag kii di maam cheikh anta mbàkke mi leen meññi ñu ràññee ci ku ñuy wax omar sarr ak ku ñuy wax ismaïla sarr am na kaneen ku mbokkal waajur wu jigéen ku ñuy wax njaay sarr njaay sarr moomu lañ tuddee waajuram wu góor ndax bi muy feeñ jamono dafa tombeeg waajuram génn lii di àdduna mu feeñ jamono ginnaaw waajuram ñett ñooñu la bokkal waajur wu jigéen bokkuñu waajur góor ñett ñooñu nag ku ñuy wax sëriñ njaay sarr moo nekk seen waajur am na kaneen ku jigéen ku mbokkal soxna mariama njaay ku ñuy wax aji faati soxna aji faati moomu nag moo nekkoon caatum soxna Mariama Njaay fañ ko yóbbu waatoon ginnaaw maam Cheikh Anta Mbàkke la ko fa am ñett la bokkal waajur wu jigéen te bokkuñu waajur wu góor ak moom muy ñeent kon nag moom amul kenn ku kum bokkal soxna Mariama Njaay ak kii di maam Cheikh Anta Mbàkke kon nag ñu wax leen ñett ñi mu bokkal waajur wu jigéen te bokkuñu waajur wu góor te ñett ñooñu ku ñuy wax Sëriñ Njaay Saar meññi leen Sëriñ Njaay Saar nag am ndar ndar la woon nekkoon na itim boroomu xam-xam bu géeju ci wàllu xam gën a rëy ci ndar géej moom njaay saar moom ba tey itam sëriñ njaay saar moom itam nekkoon na kadi ci ndar kadi nag ci ñu ko xamul bu baax a baax moom moo nekkoon tribunal bi doon at acte ci wàllu lislaam ci ndar géej wala sax ci afrique de l'ouest sañ basé woon ko ci ndar géej nekkoon na nag lii di kadiba kadiba nag mooy président tribunal bi ba tey itam njaay saar moomu itam yoroon na kàggug lislaam gi gën a rëy wala université bi gën a rëy ci wàllu lii di lislaam ba tax na itam téere bu nit masaa soxla ci sénégal soo demee ci njaay saar mën naa am daa ko fa fekk bi ci des itam mooy bi sëriñ tuubaa seexul xaddim ñëwee ci ndar géej ci laata muy dem ci géej gi njaay saar itam bokk na ci ñi ci tubaab bi yi ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim ndax jëmm ji kat deful dara dañ koo tooñ dong lool itam taxoon na sëriñ tuuba seexul xaddiim seede woon ci moom di ko wax ne yaa ku ñuy wax sëriñ maa bey njaay sama tukki bi seede ngeen ciy doon danaa tukki danaa ñibbisi waaye maa bey njaay dana ma teeru ca booba nag ci la njaay saar xamee ne kon mën naa am bu sëriñ tuuba seexul xaddiim dee ñibbisi du ko ci fekk mu dénk ko boppam dénkaale ko njabootam gi jëmm jooju nag Mariama Njaay mi meññ kii di Cheikh Ibrahima Mbàkke Ndar te ñu tudde ko ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim Sëriñ Njaay Saar moom moo ko yoroon mu bokkoon itam ci soxnaam yi gënoon na tuuti ci jamono jooju bi Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ñëwee ci dëkk boobu di Ndar Géej ba Sëriñ Njaay Saar seede lu am solo loolu mu seede ci tubaab bi di leen xamal ne nañ bàyyi ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ndax deful dara dañ koo tooñ dong ginnaaw bi nag ci la dem ci ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim di ko wax ne man de xam naa ne nit ku sell nga nitug lislaam nga te Ndar Géej gi kat ñu fi doy waar dafee xaw a bari trop dama bëggoon na ngay lekk lu sell ndax mooy yow li la war su ma sañoon nag waa kër gi di la toggaaleel di la fóotaaleel ci diirub li ngay nekk ci ndar géej gi ci la sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ne tekk ab diir ginnaaw bi nag di ko wax ne boo demee ci sa kër ga ka ci gën a nekk gone soo demee nga wax ko mu di ma toggal ak di ma fóotal nag te kooka nag mooy soxna Mariama Njaay mii meññi kii di Cheikh Ibrahima Mbàkke booba Njaay Saar ko fóotal ci diirub lim nekk ci ndar géej googu bu masaa fóot yërey ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim waa ndar sax daana ñëw di ñaan si fóotin mi ngir di ci faju ndax kat ñaare ku masaa sibru wara dara dal la suñ la joxee lenn ca lañ fóote woon yërey ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim daa wér mu nekk nag ku sëriñ tubaa seexul xadim bàyyi woon xel moom soxna mareema njaay moom sëriñ tubaa seexul xadim ñu mujj ko àtte ci koo fi dem ci géej gi bi mu ñibbisiwaatee ci géej gi nag la gisewaate di soxna mareema njaay mu di ko laaj ana njaay saar mu di njaay saar bàyyi ko na fi soxna mariama njaay jëlaat boppam jébbalaat ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim ngir di ko wax ne dénk naa la sama bopp àdduna ak allaaxira lu ko jiitu nag fekkoon na njaay saar mi ko yoroon foboon ak njabootam jébbalaale ko sëriñ tuubaa seexul xaddiim seexul xaddiim di ko wax ne ana sa doom ji gën a tuuti muy omar saar soo demee nag mu ko indil omar saar moom sa sëriñ tuubaa seexul xaddiim yóbbaale woon na ko ci gànnaar mujj gi nag ci mu jël ci la ci amee cheikh ibrahima mbàkke mim ko tudde soxna mariama njaay moom nekk waajuru cheikh ibrahima mbàkke moom maam cheikh anta mbàkke nekkoon na itim ku sëriñ tuuba seexul xaddim bàyyi xel ndax daana dem gànnaar di fekki ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim bi sëriñ tubaa seexul xaddim jógee gànnaar ñëw ci yéen jolof ci résidence surveillée ñëwoon na ci yéen jolof googu doon ziyaare si ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim indiloon ko ay addiye yu takkoo takkoo takku ngir di ko jébbal ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim ci biir addiye yooyu mu indi woon ci yéen jolof doon ziyaare ku baax baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim moom soxna Marema Njaay mi meññi Cheikh Ibrahima Mbàkke Ndar fan yi ko ku baax ki sëriñ tubaa fa aw ba daanu ca fas wa na lii di àdduna wala daal am na ab diir bu kenn gisul mu nooy yi deful dara ginnaaw buñ ko yëgalee ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim sëriñ tubaa seexul xaddim fatoon na ko ci am néeg ci diir bu yàgg ginnaaw bi nag soxna Marema Njaay jóg na di doxaat sëriñ tubaa seexul xaddim di wax ña nekkoon ci ca di leen xamal ne suñ boroom laa doon tinu génnu ci jëmm ji ndax kat munta jóge ndar géej ñëw fi doon ma ziyaare si génn fi lii di àdduna sëriñ tubaa seexul xaddim sax defoon na ay way ci jëmm jooju ci jataay boobu muy tinu googu mu tin woon suñu boroom sëriñ tuubaa seex saalihu mbàkke mas na laaj turandoom wii ko cheikh ibrahima mbàkke tudde muy sëriñ saalihu mbàkke moom cheikh ibrahima mbàkke ndar di ko wax ne way yi sëriñ tuubaa seexul xaddim defoon ci seen maam ja di soxna mariama njaay kan moo ko ci yor ci yéen sëriñ saalihu mbàkke moom cheikh ibrahima ndar di laaj sëriñ tuubaa seex saalihu saaliwu da ñoom xamuñu ko sax ci la ko sëriñ tuuba seex saaliwu mbàkke nettilee histoire bi di ko wax ne ci cë yéen jolof soxna mariama njaay woon na fa ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim daanu fa ci aw fas keroog sax dafa mel ne lu génn àdduna sëriñ tuuba seexul xaddiim fatoon na ko ci am néeg ab diir bu yàgg sëriñ tuuba doon wax mbooloo ma di leen wax ne suñ boroom laa doon tinu ci jëmm ji ngir bañ nag mu ziyaare si ma ba noppi génnee fi àdduna loolu laa doon bañ ginnaaw bu tuuba seexul xaddiim tinoo soxna mariama njaay ci suñ boroom ngir mu bañ ko mënoo génnele àdduna ci dëkk boobu di ci yéen jolof ci mbind ma sëriñ tuuba seexul xaddim bindoon ci soxna mariama njaay ngir di seede loolu na wax na ko suñ boroom ci la ko waxale ne suñ boroom xamal na ma ne da nga dundaat fanweeri at ak ñett ak ñetti weer ak ñetti fan doog a génn lii di àdduna waaye yooyu nag la sëriñ Tuubaa Seex Saaliyu Mbàkke doon laaj njabootu Cheikh Ibrahima Mbàkke Ndar ci la leen nettilee histoire bi ba tey jëmm jii di soxna Mariama Njaay mi waajuru Cheikh Ibrahima Mbàkke Ndar sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim itam bàyyi woon na ko njaareem ci kër gu mag gi ngir di ko wax ne na jàngal waa kër gi lii di togg rawatina ci wàllu ceeb ndax daana jóge Ndar di togg ay ceebu jën wala di togg ay ceeb di ko indi ci njaareem wala ci yéen jolof bu ñëwee daa ko def ci ay dank daa ko jox nit ñi seexul xaddiim nag bàyyi woon na ko ci njaareem ngir mu jàngal waa kër gi togg kon mën nañu wax ne moom mu njëkk togg ceeb ci njaareem ci kër gu mag kon ku am wàccuwaay la ci ëttub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim moom soxna mareema njaay mi meññi cheikh ibrahima mbàkke yàlla nañu ko yàlla fayal ci jëf jooju mu jëfal seexul xaddiim sëñ ibrahima mbàkke ndar bi matee dal lii di alxuraanul karim waajuram sëriñ tubaa seexul xaddiim lañ ko yit ci njaareem booba nag sëriñ tubaa seexul xaddiim jóge na ci résidence surveillée bi mu nekkoon ci gànnaar ak lii di cëyeen jolof ba ñëw njaareem moo ko dalal lii di alxuraanul karim fa la nekk ci atum 1912 ba atum 1917 ci loxoy ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ginnaaw 1917 nag lañ ko jébbal cheikh mamadul bachir mbàkke ibnu sëriñ tuuba seexul xadim ci daaray alxuraan jooju nekkoon ci njaareem ginnaaw cheikh mamadul bachir ibnu sëriñ tuuba seexul xadim lañ ko yóbbu nag gànnaar ci réew mi di butti limi ngir mu wéel fa am njàng ci wàllu xam-xamam ñi ngi ko joxoon naar bu ñuy wax cheikh mohammed salim ibnu mamul salim ci réew moomu di muritani fa la nekk nag ba lim soxla woon ci wàllu njàngum xam-xam mu mokkal ko mu ñibbisiwaat ci njaareem ci loxoy ku baax ki sëriñ tuuba seexul xadim ndax cheikh anta mbàkke sëriñ tubaa seexul xaddim la ko tudde la ko joxoon sëriñ tubaa seexul xaddim ci diirub li muy nekk ci njaareem mu nekk ci loxoy sëriñ tubaa seexul xaddim lépp lu mag ñi daj ci njaareem nag moom mii di cheikh ibrahima mbàkke ndar daj na ko ci loxoy ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ginnaaw bu mu jàngee ba ñibbisi fa la nekk itam ba ni sëriñ tubaa seexul xaddim génnee àdduna ci le 19 juillet 1927 ginnaaw bu ñu toppatoo sëriñ tubaa seexul xaddim ak ginnaawam ba noppi nag la delsiwaat nag ci ëttub waajuram wu jigéen di ndar géej ndax kat doomu ndar-ndar la te foofu la cosaanoo moo tax sax tur wi ñu koy dàkkantele di cheikh ibrahima mbàkke moom ndar géej moo tax ñuy wax cheikh ibrahima mbàkke ndar waaye sëriñ tuuba seexul xaddiim la ko waajuram tudde di maam cheikh anta mbàkke cheikh ibrahima mbàkke ndar sëriñ tuuba seexul xaddiim mi waajuram moo ko tarbiya ci njaareem mu bokkoon itam ci sëriñ tuuba seexul xaddiim tafoon ci boppam ndax doomam la te ku sëriñ tuuba seexul xaddiim bàyyi woon xel la sëriñ seexul xaddiim itam daana ko yónni léeg-léeg ndax kat cheikh ibrahima mbàkke bu leen fàtte ne moom mooy mbàkke mbàkke bi njëkk am nationalité sénégalaise ndax ci quatre commune yi la feeñe jamono ndax xam ngeen ne avant sénégal nag di am indépendance pour nga nekk sénégal d'origine il faut que na nga feeñe jamono ci ñeenti commune yi ñeenti commune yi nag moo nekkoon ndakaaru Gorée Rufisque ak ndar géej ci ñeenti communes yooyu nag benn la ci feeñe jamono muy ndar kon moom sénégalais d'origine la woon mu doon lijjanti dara nag moo gën a yomb baneen sénégalais bu feeñe jamono ci baneen zone bu bokkut ak ñeenti communes yooyu moo koy njëkk am ndax moom sénégalais d'origine lañ koy jàppee loolu itam tax na yenn yi suñ ko masaa lijjanti danañ ko jaarale ci moom ndax sénégalais d'origine bi mu nekk kon loolu itam bokkoon na ci lenn lu mu féete woon seexul xaddiim ginnaaw bu sëriñ tubaa seexul xaddiim génnee àdduna ci atum 1927 nag ba mu dellusiwaat ci loxoy waajuram waajuram féetale ko ci dëkk boobu di ndar géej ak ndakaaru njaay foofu la ko waajuram maam cheikh anta mbàkke woon ndakaaru njaay googu itam nekkoon na fa ci ndigalul waajuram maam cheikh anta ngir muy dimbali dimbali bépp murit boo xam ne nii ñëw na ndakaaru am lu muy lijjanti mu jaar ko ci cheikh ibrahima mbàkke ndar ndax sénégalais d'origine bi mu nekk ndax ci kat commune yi benn la ci feeñe jamono loola nag waajuram xamoon na ko maam cheikh anta mbàkke ba féetale woon kon ndakaaru ndakaar goog sax amoon na daayira bu mag bu fa nekkoon boo xam ne ni cheikh ibrahima mbàkke ndar mii moo ko fa taxawaloon ngir di jàppale muritu seexul xaddiim yi bépp këyit wala bépp jafe bu ñu am ci administration bi moom cheikh ibrahima mbàkke ndar waajuram maam cheikh anta mbàkke daana ko itam ci mag ñi ndax daana ko yónni ci maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina kon def na ab diggante ci maam Cheikh Ibrahima Fall ngir mu tarbiye ko moom Cheikh Ibrahima Mbàkke def na itam ab diggante ci sëriñ ndaam Abdourahman Lo ngir mu tarbiye ko maam Ceerno Ibrahima Faatimi sàkku woon ñu di ko wooye itam maam Cheikh Anta Mbàkke bàyyi woon na ko Cheikh Ibrahima Mbàkke def fa ab diir ngir lépp rek maam Cheikh Anta Mbàkke miy waajuram di sàkku ak tarbiyewaat ci moom mu nekk nag ku am relation ak njabootu ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim moom mbàkke gaynde fatma xaritam la woon wóllëreem la woon ndax ñoom ñaar ñoo bokkoon nag lii di gis-gis ba tax na boo delloo ci seenu njaboot ñoom ñaar seenu njaboot ñoo nekk ñi gën a nekk ay intellectuel ci yoonu murit dañoo teel a comprendre ne tubaab ab langue dong la ngir ñu jàngale ko wala ngir ñu jàngal ko seeni doom bokk gis-gis googu ñu bokkoon gis-gis loolu taxoon na nag ñoom ñaar ñu nekk ay wóllëre njabootu ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke moom ku bii di àdduna seex mamadul faadal mbàkke moo jëloon waajuru soxna maymunatu mbàkke moom sëñ abdullahi mbàkke boroom dër bi jébbal ko cheikh ibrahima mbàkke di ko wax ne ginnaaw sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi yaa ma ci doy moo tax sax am nañ benn bant ku ñuy wax cheikh ibrahima taal mbàkke cheikh abdul ahad mbàkke bàyyi woon na xel kii di cheikh ibrahima mbàkke ba daana ko wax ne jéggal nañ la nga ñëw di ñu seet si heure boo ñu soxlaa yëglul rek ñun ñu ñëw taal suñu oto fekk si la te moonte cheikh abdul ahad mbàkke moo nekkoon Ibrahima Mbàkke magoon na ci mbooleem mbàkke-mbàkke yi kaamil biñ doon donnante ci mbàkke-mbàkke yi yoroon na ko loolu taxoon na Cheikh Abdou Lahad Mbàkke bàyyi woon ko xel ba di ko wax ne heure boo ñu soxla yëglul ñun ñu ñëw fekk si la moom itam daana seeti Cheikh Abdou Lahad Mbàkke ci mbooleem fu mu nekk moo xam Tuubaa moo xam Tuubaa belal ak faneen ak faneen Sëriñ Tuubaa Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke itam kasaalika daana solu dàllam di seet si kii di Cheikh Ibrahima Mbàkke Sëriñ Tuubaa Cheikh Saliou Mbàkke moom ay wëllëre lañ woon ba tax na kii di Ibrahima Mbàkke doom ndax sëriñ saalihu mbàkke ibrahima mi ngi fi sëriñ basiiru mbàkke itam kasaalika moom itam wëllëréew cheikh ibrahima mbàkke ndar la woon ba tax na séq nañ lu bare bare bare bari ñaari jëmm yooyu ak ñeneen ak ñeneen ci ëttub ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim moo xam doomu seexul xaddiim yu góor yi wala yu jigéen yi ñi mbokkal maam cheikh anta mbàkke itam kenn demul ñu des ñoom itam ñoom ñëpp séqoon naag ñoom relation bu dëgër ndax ñenn ñi rakk lañ ko jàppe woon te ñi ci des lañ ko jàppe na ci lu takkoo takku ci liggéey bi dem na itam lii di màkkatal mukarrama ngir ziyaar yi ngeen gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam moom cheikh ibrahima mbàkke ndar ndar googu itam la toog ba ci atu 1975 bi mu nekkee xalifa maam cheikh anta mbàkke mu nekk ndar googu ci ndigalul waajuram maam cheikh anta mbàkke ndax kat foofu la cosaanoo foofu la waajuram wu jigéen itam cosaanoo moom itam foofu la feeña jamono di ndar géej googu di jàng ak di jàngale di yar ak di defare ndax kan doona lool dong nag la donn ci kiñ ko jébbaloon di waa waajuram di sëriñ tubaa seexul xaddiim te lool dong nag la seexul xaddiim def ci moom lépp lu ko waroon ci ndar géej googu itam def na ko ci wàllu jàngale ak yokk yoon wi di yoonu murit wi mu bokk ak wane ndonal sëriñ tubaa seexul xaddiim bi ku ko gis itam xam ne ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim lañ ko tuddee moo ko yar mu nekk nag ku kiimaane ndax biñ ko tuddee sëriñ tubaa seexul xaddiim sëriñ tubaa seexul xaddiim daana ko wax ci njaareem ibrahima maam ceerno ibrahima faati de ku am fulla la ndax fexe na ba sama ci yow nangu ci mateel la baatin bi loola nag taxoon na cheikh ibrahima mbàkke ndar nekkoon ku yéeme ndax kàddu yooyu ko seexul xaddim waxoon ndax ku maam ceerno ibrahima faati téel sa saayir sëriñ tubaa seexul xaddim téel la sa baatin ngay doomu maam cheikh anta mbàkke borom dërëm ak ngërëm doo ko tuuti moo tax cheikh ibrahima mbàkke ndar nekkoon ku yéeme ndar googu la nekk ba ni mu toogee xalifa ci atum 1975 nekk na ñetteelu xalifa maam cheikh anta mbàkke mu jógee ndar googu nag ñëw daaru salaam ak gaawaan ñëwee wuutu si waajuram wa maam cheikh anta mbàkke na ko ay magam defe woon muy sëriñ muudu maamun mbakke mi njëkk a wootu maam cheikh anta mbàkke ak sëriñ elaaji tàkko mbàkke mu ñëw nag toog toogaayu maam cheikh nekk ñetteelu xalifa maam cheikh anta mbàkke moom cheikh ibrahima mbàkke ndar dajale njabootug maam cheikh anta mbàkke gépp di leen xoole maam cheikh anta mbàkke ñu jigéen ñi itam daana def saa jot mu fab ay addiyee jox leen ko ngir di leen xamal ne toogaay bii ñu toog ñoom ñooñu waroon nañ caa toog lii ñu leen di jox nag seen wàll la ci seen ndonal waajur wi ku xamoon ay rakam la yu jigéen wala ay magam yu jigéen ngir xam ne cër boobu jombu leen xanaa li ñuy jigéen dong nga tax kon moom daana leen ci bàyyi xel bu baax a baax boole googu mu boole woon njabootug maam Cheikh Anta ba ñuy benn taxoon na itam dëkkum maam Cheikh Anta Mbàkke bii ñuy wax gaawaan woote waatoon na fa ak gàmmu ngir njabootug maam Cheikh Anta gépp itam di ko fa fekk ngir ñu fay gàmmoo ndax gaawaan googu kat ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim teg na fa tànk gaawaan foofa nag la daa wootee gàmm ngir njaboot gi nekk benn kon moom ku ci daa bay waaram la taalibe yi yaakaar maam cheikh anta mbàkke itim ku leen bàyyi woon xel la moom cheikh ibrahima mbàkke ndar ba tax na ceeb biñ jóge kebe daa séddale lii di kilifay diine yi moom suñ ci masaa jox wàllam njabootug maam cheikh anta mbàkke lu ci bari ci taalibe yi la koy delloowaat moo xam yi nekk ci bambay moo xam yi nekk ci tuuba bu doonee ci bambay ci magasin bi nga xam ne moom moo nekkoon bambay ñu koy wax magasin jibril pharmacien bi nag léegi nekkatu fa waaye ab pharmacie moo fa nekk pharmacie bi lañ tudde pharmacie daaru salaam sooy dugg bàmbay ci station total bi ñoom ñaar ñoo taqaloo foofu la daa ba dund bi waa tund wa di ko fa fekk di ko fa jëlsi bu doonee Touba nag wala Mbàkke Bawal mi ngi ko daa bàyyi fii ñu tudde magasin Alioune Dieng Kambel bu ko defee itam waa Mbàkke Bawal ak waa Touba di ko fi jëlsee kon ku taxaw woon taalibey maam Cheikh Anta Mbàkke yi la ba tey ci liggéeyu Cheikh Ndar ci bi mu xalifa maam Cheikh Anta salaam bu tollee fii mu toll ginnaaw yàlla mooma ndax kii di sëriñ Moodu Maamun Mbàkke mooy ki ko sosoon bi mu fi bàyyi ci million franc CFA la ko bàyyi am na itam ab diggante bu xaw a yàgg bu addiyey daaru salaam yi taxawoon nga ne yóbbootuñ ko woon bi cheikh ibrahima Mbàkke ndar toogee lii di xalifa maam cheikh anta Mbàkke la waxaat njaboot gi nañ koy laajaat ngir di ko yóbbuwaat moom bi mu fiy bàyyi ko ci trois millions franc CFA la ko bàyyi addiyey nag moom mooy wéy di doxandi ba nëgëni kon liggéey bu am solo la def ci add addiye màggal gi ñu tudde màggaluk daaru salaam itam di màggal gi ñuy fàttaliku kii di maam cheikh anta mbàkke itam bay na ci waaram te def na itam lu am solo ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu mu def ngir ndonal juróom wi di maam cheikh anta mbàkke jëm kanam ci lool nag la sax ba nim génnee àdduna ci atum 1987 laataa muy génn àdduna moom cheikh ibrahima mbàkke ndar lu yéeme la def ci ak xilaafaam ndax ki ko waroon na wuutu di sëriñ cheikh coro mbàkke moom maam cheikh anta la woolu bam ñëw mu di ko mujjee màggal màggalug maam cheikh anta mbàkke cheikh ibrahima mbàkke di xamal kii di sëriñ cheikh coro mbàkke di ko wax ne damaa bëgg nag mbooloo mi topp ci sa ginnaaw nga def leen rakk ñoom itam ñu def la mag ndax kat jamono ji yow yaa mag ci njabootug maam cheikh anta mbàkke gi kon ndénkaan lool rek laa doon def ci yow sëriñ cheikh coro mbàkke di wax magam ji di cheikh ibrahima mbàkke di ko wax ne man de kenn duma dénk mbooloo mi ndax dama bëggoon di toppe bu fekkee ne lool la na kon dooma fi ba ñu tàggatoo ci yooyu kàddu ñu teg ci nekkoon ñetteelu xalifa maam cheikh anta mbàkke daal di tëdd feebar nag ñu yóbbu ko ci hôpital principal bu ndakaaru ci diir boobu mu tëdd hôpital principal ndakaaru nag ci la sëriñ cheikh coro mbàkke moom itam tëdd feebar daal di génn àdduna ci biir feebarub cheikh ibrahima mbàkke ndar ci diiru ñeenti fan lañ rawantee ñoom ñaari jëmm yooyu kon cheikh ibrahima mbàkke ndar itam jaar na fi rakkam sëriñ cheikh coro mbàkke moom maam cheikh anta mbàkke bi génnee àdduna nag la ko sëriñ saam mbàkke wuutu waaye sëriñ cheikh coro moo magoon sëriñ saam soxna a Njaay ja ak kii di maam Cheikh Anta Mbàkke boroom dërëm ak ngërëm ki toogoon ñetteelu xalifa maam Cheikh Anta Mbàkke ke ñu tuddee waajuram wa Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim te maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke sàkk woon ci moom ñu koy wooye aw turam mii génn àdduna bisub ajjuma juróom-ñeenti fani muharram ci atum 1408 ci gàddaay gi ajjuma juróom-ñeenti fani muharram ci atum 1408 ci gàddaay gi dëppook muy vendredi 4 septembre 1987 vendredi 4 septembre 1987 ci hôpital principal bu ndakaaru ci feebar bu ko tëraloon ñu jële ko ndakaaru indi ko ci dëkk bii di dëkku waajuram di daaru salaam cheikh abdou xaadir mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddiim moo ko taxawu moo ko jullee ci bëccëgu 5 septembre 1987 5 septembre 1987 ñu jébbal ko boroomam ci wetu waajuram woowu maam cheikh anta mbàkke moom cheikh ibrahima mbàkke ndar sëriñ saam mbàkke ibnu maam cheikh cheikh anta mbàkke moo ko wuutu ci xilaaf ak maam cheikh anta mbàkke ñëw nekk ñeenteelu xalifa maam cheikh anta mbàkke sëriñ siidi mbakke muy kim duppee waajuram maam cheikh anta mbàkke moo ko wuutu ci xilaaf boppam ñuy ñaan ci darajey doomam jooju di sëriñ siidi mbakke mi toog toogaayu cheikh ibrahima mbàkke ndar suñ boroom yàggal ko ci toogaayu cheikh ibrahima mbàkke ndar ak mbooleem ay rakkam ak taalibey cheikh ibrahima mbàkke ndar yi ak soppay cheikh ibrahima mbàkke ndar yi ak sët yéeg jarbaar yéeg mbooleem ku yaakaar cheikh ibrahima mbàkke ndar wala nga koy safoo cheikh ibrahima mbàkke ndar nag am na bis buñ koy fàttaliku mu dëppoo fukki fan ci weeru muharram ca juróom-ñeenti fan ya la génn lii di àdduna ca fukki fan ya nag lañ ko jébbal boroomam ci wetu waajuram maam cheikh anta mbakke fukki fan yi nag ci la njaboot gi jàpp di ko fàttaliku ci liñ tuddee màggal bis boobu la njabootam gi jàpp di ko ci fàttaliku yamale ko nag ci wàccem am kaamil ngir ñaanal ci seen waajur woowu di cheikh ibrahima ci kër cheikh ibrahima mbàkke ak ci daaray kaamil ji nga xam ne ni moo nekk ci daaru salaam ak ci dëkk bële itam di ndakaaru ak faneen fuñ ko man di defee waaye ci ñaari dëkk yi daal mooy ñaari dëkk yi gën di man di fàttaliku cheikh ibrahima mbàkke muy gaawaan ak ndakaaru ci bëccëgu fukki fan ci weeru muharram di bis bi nga xam ne ni ci lañ ko jébbal boroomam cheikh ibrahima mbàkke nag moo sàkk woon ci ak njabootam ci bisiñ tuddee ak màggal ñu bañ ko koo defal suñ demee ba mënuñu koo ñàkk bañ a di ko wàcceel alxuraanul sàmm nañ ko ba niñ koy wéyandil noona ko Cheikh Ibrahima Mbacke sàkkoo woon ci ñoom ñii ñaan ci doomu soxna Mariama Njaay je ka ñu tudde Cheikhul Xadim di Cheikh Ibrahima Mbacke Ndar dem toogoon ñetteelu xalifa maam Cheikh Anta Mbacke yal ñu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem bi jeey yi darajey waajuram maam Cheikh Anta Mbacke lii di jafe-jafe réew mi tam yal na ko suñ boroom saafara amiin boroom saafara amiin boroom saafara amiin